les parti au Sénégal, les cheminots, bref, tout Sénégalais

bëri ñu ubbi seen bureau ay Thiès ubbi seen direction à Thiès ñëw fii Thiès ubbi fi an ubbi fi benn euh, benn euh, maanaam euh, service commercial te mbëbët